voilà euh, mbokk internet euh, tey ñu ngi fi daje ak euh, Balla Gaye bi ñuy gën nga xam ci Balla Mbaam dëkk Yëmbal Sud ñu jox ko mu présenté wu Balla. waaw salaamaaleykum ginnaaw bu ma sant waa Yëmbal Sud du sant kilifa diina yi nekk Yëmbal Sud ak fépp du sant adduna bàyyiwuma kenn sama sëriñ suñ Mamor Mbacke samay ñaari waajur waaw du sant waa dëkk bi yëpp daal ne seen dooma nekk nii Balla Mbaam bu Yëmbal. te moom ñëpp xam nañ ko moom day nekk di kaasal yëmbal di sonn si yëmbal lu jafe-jafe gu yëmbal am du si taxaw waaw. waa Balla yow nga ni euh, activiste nga euh, dëkk yëmbal di marchand ambulant tey ji nga ni da nga ñëw pour waxtaan ak euh, askan mi di waxtaan ak réew mi ak autorité yi ci jafe-jafe yi nga xam te ni moom la jeunesse yu yëmbal am yow yow yaay kenn ci yëmbal ba war a mën a waxal yëmbal. man man de wax dëggu fa yàlla man man maay bala mbaam bu yëmbal man maay toog di waxal yëmbal fépp man 2STV yi laa feeñoon muy Pape Sidi Fall boobu la muy waa yëmbal ràññee waa diaspora bi ràññee ma ñëpp ràññee ma may wax ak ñi nga xam ne mooy yëmbal mooy ñi nga xam ne nii mooy enfant de la rue ñi nga xam ne ñoom lañu ñu war a jàppale te jàppalewuñu leen mooy ñi nga xam ne dañuy toog foofu noonu di dund affaire banditisme wala ñuy dund li nga xamante ne nii ne ko jul noonu ñu war leen a soutenir gaaw dimbali leen mais duñ ko def ndax dañoo xam ñi nga xam ne nii ñoom ñooy coupable biir yëmbal kenn du leen laal kenn du leen laal ñooñu ndax li ñuy fay weer bu dee ah moo tax ñuy ñuy sonal booy yi nga xam ne defuñu dara procureur li ñu koy yóbbul bari na. li ñuy yóbbul procureur bari na procureur yi tëj doomu jàmbur si ay deux ans te procureur bu seetlu woon li muy tëj bu xooloon li muy tëj bu baax dina xamee ne doomu yëmbal yi nii defuñu loolu PV e dañ jàpp sa dossier sarseer la ko ba nga xam ne ni yow mii sax li yow boo jàkkaar rek procureur yow li ñu lay tuumal ni yow defoo ko ndax juge bi da lay a tëj sax yenn saa yi di xoolaat dossier yi mu xam ne lii police moo ko defar man li may wax ni damaa leer ndax barki démboo Ndiaye fan yee passé dañ ma si jàpp si police Thierno Ndiaye bi jàpp mag benn cornet man du man du ma man dëgg laay wax man du ma fen xaw ma yooyu ñu jàpp ma benn cornet defeere ma barke Seexul Xadim defeere ma sa tappal ma dileer man te man du ma dileer man dama fay nekkal yëmbal di kaasal yëmbal di pour jeunesse bi lu ñuy dundee ma moo ngi nii barki démboo Ndiaye la ñëw cinq ans la libéré. Euh, yow nga ni danga bëgg di waxal ak euh, yëmbal di wax ak jeunesse yëmbal. di leen kaasal di di di di am benn taxawaay bi ba pare ñu lay jàpp ak loo xam te ni benn cornet maanaam ñu lay jàpp ak yàmbaal te loolu dañ ko aaye est-ce que est-ce que est-ce que yow nga bëgg a wax nga bëgg a wax ci bëgg jël kàddu yëmbal ñu ñu ñu di la jàpp ci loo xam dañ ko aaye itam bala loolu dëgg la mais bu ma la waxee jàpp ñun jàppewuñu ñu dara man bala lu xew yëmbal man lañ koy wax suñ kër la ñuy ñëw yeesi ma benn jour suñ kër leen tëb jël si ma man du ma def dara yëmbal yëmbal laajteel paa yeeg maire ñëpp xam nañ ma man amul lu may def yëmbal lu ñaaw man yëmbal damay fekk sax booy ñii di gens ñii di nekk su dul noonu mu ñëw jëmbali leen génne leen si lu nekk di leen wax ne leen lii ngeen war a def ak li ngeen war a ak fi ngeen war a jaar. mooy euh, boo leen ci mënee bu fekkee mën nga ci génne mooy kon xam nga yoon wi xam nga maanaam xam nga yoon mooy amoon nga ci jaar-jaar bu war a tax yow nga mën leen a génne ci yoon wi ñu nekk. waaw amoon jaar-jaar boobu noonu nag moo tax ñu mën leen a génne si ñoom lu ñu nekk ndax ñun jaar nañ ko rampé nañ ko def nañ ko xam nañ li nga xam ne nii yoon da koy kere loi da koy kere mais ñun jeunesse yombal respecté wuñu kenn respecté wuñu ñun joxuñ ñu gëdd giñ moom. waaw mais respecté wuñu leen tam Balla est-ce que du euh, euh, li nga xam te ni moom la li li ñuy tuumaal jeunesse yu yëmbal ñoo moo la moo tax kenn du leen respecté que bu fekkee ni euh, ku dugg yëmbal sax da ngay tiit. ku ku dugg yëmbal da ngay da ngay sa sa fit ànd ak yow da ngay tàqali ko sa sago ndaxte da ngay ragal ko la agressé da ngay ragal ñu jàppale jàppale leneen loo xam ne ni xëy na loolu nekkul ci yow parce que agression bi ma nga fa drogue ba ma nga fa lu yu bon lu bëri ma ngi biir yëmbal te vraiment loolu war na mën a dañ quoi. mais tamit euh, doguma la. li nga wax nii ñoom kilifa yi nekk ñu ñu jiite ñoom xam nañ kilifa yi ñu jiite ñoom xam nañ fi jorog bi di jaar ak fi muy génnee ba dugg foofu ba ba ñëw foofu. ñoom xam nañ ko bu nga xamul woon du dugg foofu yëmbal amul amul ay agression yëmbal mosuñu faa rey fi ma dëkk amul rey nit mosuñu ko fa def amul moor yëmbal mosul am moor fi ma dëkk man booy li ñuy mën a dund di yi mandi mosu fa am moor wala mu ñuy kuñ jàmm ba muy nekk si lii nga dee amul man daal lañ si gaañ gaañ boo xam ne moo nekk nii waaw. waaw lii ba may soog a génn samay trois mois yi la ba may ñëw Sénégal fii. waaw man ak sama benn booy la nag boo xam ne ni sama xarit la ñooy ànd man du ma topp lépp mu sës waaw dama xam ne ne gàñña ma yàlla moo woon ne te yi damay gànca déewu ma. loolu nu la gàñña paaka. lii xottu biteel la. la doon waaw lii xottu biteel la mais teewul ne moom ba léegi jàppalu mu ko jara sama raq la sa jour fu may dem damay damay topp sama may dem mbar sama dëkku sëriñ suñ ma moor Mbacke ñi war a dëkki gerte gi man ak moom ñooy ànd kon boo yooyu toppee mu leen dara ñoom dalaa leen toppee pour ñu jàppale ñu ma jàppale leen di nga deux fois yëmbal yaa ngi nii dañ see war a jóg ndax yëmbal dafa metti yëmbal deux waaye yi yu jugee benn barak jaar jàqay laayeen ba léegi noonu lañ ko bàyyi xuñu si dara te ñu dem ba ñu ñëw ba caaree jumaa ja defar télé public télé public oto yi fu ñu war a jaar ñëpp ñu fay def ay télé koro télé koro boo xam ne nii amul sax ay canal foofu bu ta bu tawee dina sonal waa kër waa waa waa waa teer baa ngi nii dañ kaa defar mais du teeru dara teer bi man si laa wàccee nii teer bi boo si duggee comme ay xar lañ yàpp fees jàll la def te ñun Sénégal ñun moomuñu fi dara dara moomuñu ko abaa yëmbal la dëkk ay ñoom ñànku yëmbal la dëkk te dañuy dañuy dañuy taxaw di li li li li wal yëmbal ah? am na imam boo xamee ne nii mooy suñu suñu suñu oustaz bi nekk TFM Modou kii nii Modou Fall ñoom lañ nekkee biir yëmbal lu dul xañ yu ñëw di wanewu ñun gëmuñu loolu ñun waa yëmbal ñun xamal lañ gëm ku ñuy dimbali ku ñuy ku ku ñu suturaal mais ñëw di dawal sa kat kat ne ko su dul noonu ñun gëmuñu loolu. waaw euh, xëy na du nekkul li ngeen gëm parce que li ngeen gëm mooy euh, seen situation en tant que jeune. mu mu changé mu soppeeku mais euh, ndimbal dafa ci fekk loxo loxoy borom Modou euh, euh, Balla yan yan yan mébét wala boog yan action ngeen yaakaar ni yéen en tant que xale en tant que jeune ngeen war a def pour commencer xam nga dañuy wax ni xale bu loxoom setee mën a bokk ak ay mag ñu bëri dañ leen a xaw a siixlu bëgguñu bokk ak yéen bëgguñu leen jege ndaxte tout simplement xëy na kon lu ma la koy wax rek wàllu drogue. wàllu gains wàllu yooyu yëpp te Balla Balla nit ki balaa moo neex a dimbali dafay da dafay dafay dafay dafay nangu soppeeku daal ah. dëgg li ngay wax nii du ma la si doog dama la siy jàppale ndax ñun suñu koñ fee ñu nekk fee ñu dëkk kilifa gu fa war a ñëw war ñoo jàppale suñu grand frère yi nga xam ne ñoo nekk si biir koñ bi ñoo naan non bu leen dem si booyee ñi ay bandi lañu te ñun du ñu ay bandi te lu xew ñun la ñuy woo si ñun bu nekkee xeex wala bu nekkee reyante ñun la ñuy jël si. ba pare bu ñu demee si kilifa yi ñu ay bandi lañ sax kilifa yooyu noonu ñooñu war a ñëw xool si jeunesse bi lu ñuy dund ak leen naqari ñu fajal leen ko mais duñ ko def de man damaa taxaw di wax si barax bi mooy barax ñax yi ba sonn kenn dëgg moom moo dugg fa dagg ñax yi te foofu noonu am na yeew am na lépp te dama koy wax sa jour ñu bàyyi fa benn ki nga xam ne mooy jigéen suñu jigéen Ami Sall moom mooy suñu chef de quartier chef de quartier koñ boobu noonu tey police ba lu ne luñ def koñ ba. moom mooy ñëw woote ne lii moo fa am lii moo fa am te wala ñëw di woote police bi di woo commandant wala commissaire dañuy xool ba pare ndax tey bu ñu commandant jël benn bopp rek ne waa ko ñu ñoom Balla Mbaam mooy naataanga laa dëkk sama kon lañ jàppee ñëpp ñoom ñooy bandi yi te du ñooy bandi waaw ndax police dafa jël police Thierno Ndiaye dafa jël ne sécurité bi da koy yemal Thierno da koy yemal Farba ñun ñooy bandi yi ñun la ñuy dóor ay loxara maseer suñu maire ñii di dee ñii di sonn yaa ngi may déglu ñii di sonn ñii di am ay problème mooy machine bi passé ñu toj si ñu toj si ñaari oto 40 ñu waxoon naa la ko sànq léegi léegi ñu toj si ay oto yu bari ñu ñëw fekk ma si police bi police bi ñaata ban heure lañ ma jàpp 3 heures lañ ma jàpp 2 heures lañ ma jàpp téye ma fa balan ba ay une ku ñëw muy jigéen muy mag ku ñëw autorité daal oto bi ñëw ne Balla mooy yàq oto yi ku ñëw gisuma ruus si biir police bi. maanaam yow bu ñu ay booru tisbaar la. ba ay une heure du matin yaa ngi ci biir police bi maa ngi ci lu xew yow yow lañ koy tuumaal. waaw lu xew nag man lañ kon Balla war nga war nga mën a bàyyi xel euh, war nga mën nga bàyyi xel ba fekkee ni lu xew rek ñu ni la kon boog bàyyil xel sa bopp ci lu bari. te barki Dembo Ndiaye samedi bii passé ma génn nii am naa fu ma demoon bay soog a ñëw ànd ak sama benn booy mu jaar ne ma ñëw di ñibbi ci tëdd sama biir gàlle ni may ñëwee la ñuy daj yi birigu Seydou bi birigu Seydou bi nekk sama koñ. dañ nga ñu ko doon daj am lu ñu fa jël ñu ñu bëgg a dajwaat ma tombe si ma ñëw bu rëy di ko daj yor ay jaasi ñu yor paaka man maa leen songu attaqué leen ñu leen brique bi yoo ko daj man su ma neexoon su ma nekkoon malfaiteur man may ñëw bokk ak ñoom jëm mais dafa ma ko damaa ñëw attaqué bu attaqué malfaiteur yi ñu leen suñ koñ kenn du ko salteel ñun ñuy seetaan kon lu ñu jàppale ñun lu ñuy yóbbu si procureur dañuy indi si siis yi pour ñuy tëj dañu bàyyi loolu amul njëriñ ndax Colobane bii nga ñëw dakaar amul liggéey Dakar dañuy yeb teer teer bi dañuy yeb si teer bi rek indi ñu fii boo ñëwee fa fii ngay yem Colobane euh, fukki jaay fi am ah défoncé défoncé lan lañ fa dem dañuy liggéey Sandaga ñun fa lañ nekk di ko jaay tey bu nekkoon tey nit ku ñuul moo bëgg Sandaga tey duñ ko ko jox nit ku ñuul bu nekkoon tey moo bëgg Sandaga duñ ko ko jox. mais Balla taxawaayu jeunesse bi tam lan la ci maire bi def. man maire bi bëgguma wax ay waxam. lim ku mel ne monsieur le maire Baraka yi du ma wax ay waxam démb laa fa jaar wax leen li mu leen wax ñu leen yéen du wax seen wax ndax monsieur le maire dafa bett yëmbal ensemble national gay mu dem amul benn njëriñ dafa amul benn njëriñ ndax dafa day toog ensemble di wax loo xam ne nii ñun waxloowuñu ko ñun booy toog yëmbal da ngay toog ensemble ña fa nekk ñëpp seen bopp lañ fa nekkal fii ku fi falu sa bopp nga fi nekkal amul Sonko amul kii amul kaa ñoom ñëpp ñoo yem kon ñun du ñu dee si heureel bërki démboo Njaay ba may ñëw si Père Ngone mii ba may ñëw si Père Mangone mii dama fekk alkaati yi di jàpp booy boobu Sonko moo doon wuyu ji tourné ñuy jàpp booy yi di leen dugal si oto bi pourquoi ñu jàpp jël booy di jàpp di xool di ràññee ay booy ñu war a jàpp ak booy ñu war a jàpp te léegi ñëw Sonko day dem ci di këram fàtte booy yi léegi nag kuñ jàpp yaay perte boo yorul nag sa waa kër bu ñu yorul lu ñu mën a suuree mat nan la jëlee avocat te avocat dañ la kay jëlal avocat la du jëriñ dara dañ lay tëj dañ lay ma jëm mu ngi fee barki Dembo Ndiaye la ñëw cinq ans ay ñoom buuna boo yëpp barki démb boo jàll ñëw. te ñëpp ay waa Mali ay yëmbal lañu. waaw yëmbal fa lañ dëkk cinq ans lañ libéré Aliya démb la ñëw deux ans la libéré man li ma lay wax ni fu leer laa xa teg. waaw te léegi boo yooyu noonu léegi bu ñu leen bëggee bàyyi noonu noonu ah kon léegi ñoom duñ xalaataan li ñu doon dund. mais président président de la république euh, mi ngi fi teg ay ay yenn organisation wala bokk yenn euh, kuréel yoo xam te ne nii dañuy jàppale ndaw ñi est-ce que yéen yëngeen loolu. ministre DER DER laa la wax ñëw na ba si man mii. ministre de la financé ñëw na ba si man nekk dañ leen di financé wax wala ne weng man xam man suñu njiit yi ñu fi nekk nii moo taxoon lu suñu maam galwaar doon wax rek baaraam buñ baaraam buñ tàllal nii joxoñ la mais juróomi baaraam yuñ tàllal ak yalwaan la suñu njiit yi ñu fi teel nii amuñu benn app bul jërëjëf ba nekk Europe ak fépp ndax ku nekk da ngay nekk ci télé di saaga wala nga nekk ci télé di saaga di saaga suñu kilifa diine yi duñu tuutal ñun duñ ko nangu duñ nangu ñuy tuddal suñ kilifa diine yi ndax ñoom lañ am ndax jaakaraa dafa duggoon yëmbal na yë yëmbal mooy yëmbal yëngal kon ñun yëmbal lañu respecté waa yëmbal xam ni waa yëmbal lañuy lañuy lañuy lañuy ñaxtu. waaw léegi euh, ki nga xam te ni euh, moom lay dénk DER euh, benn kuréel la boo xam te ni dafay financé ay ndaw am na ay ay ANPEJ am na yeneen. ah yoo xam te ni ay kuréel la ba xam ne président moo ko créé ndaw ñi ku ci góorgóorlu nga dem foofu ñu wutal le financement nga liggéey est-ce que loolu jeunesse si yëmbal itam yëg nañ ko wala dañ ko dañu xamul li géej gi réer. non dëgg la ndax ñun ay ponkal ñoo taxawoon ne biir yëmbal booy yi ñoom Balla Mbaam ay bandi lañ ñoo xam ne ni du ma tudd seen ay autorité lañ yëmbal nekk waa DER bu leen financé woon ñoom Balla Mbaam ndax ay bandi lañu ñun duñu ay bandi ñun DER tey bu taxawee ne dañuy financé si deux lu juge waaw wax naa leen lu ne nag ci télé lu wax naa leen lu ne ci télé mais bu ñu demee ba may wax si télé ñoom a tax ñoom Pape Sidi Fall ak ñoom Mère Maram waa ji leen gé ji leen gën a baalu àq nag si lu bëree bëri ñeneen ñun ay xale dañuy juum waaw ñi leen wax nag ñoom waa DER boobu noonu war na ñoo financé Macky Sall barki démboo njaay la jógee yëmbal safuñu géej gi safuñu safuñu yéet ñun démboo njaay la doon jaale si Modou Mbenn maa ngi maa ngi maa ngi tourné sax di jaale wala Dame Diop papa seen papa di ko jaale Macky Sall barki démboo njaay la fa jógee safuñu géej gi ñu yéet ñun Macky Sall gàcce rey na ko korog ba mu duggee biir yëmbal gàcce rey na ko ndax bu duggee biir yëmbal xool yëmbal ni mu mel ak Macky Sall li mu ñëwoon waxoon ñu ko ñun moom ak madame Faye Sall boobu Laay Wade moo ngi toog madame fay Sall ñëw indi ay balu fëgg jaay pour yóbbu ko ci daaree taalibe yi man la àndaloon boobu moo ñu ànd ak ndam si yàlla si waagaan ngeen waagaan bu baax ndi ànd ak si yàlla si waagaan ñëw wax ñu lu ne weng lu ma waxoon ne tey jii bu ma faloo man mii biir yëmbal tey yëmbal dina menaat beneen yëmbal tey yëmbal melul beneen yëmbal Amadou Hott la fa indi woon bu mu ko indee si élection maire yi Amadou Hott nag ñi àndal naq ko ndax ko àndal ñu naan la yaa fi ne yaa fi ne yaa fi ne yaa fi ne nekkoo fi ngay jël sa alal joo xam ne ni yow moomoo ko alalu askan bi la yow moomoo alal ji yi jii nii lañ si war a jàppale na la leer na ne yow mii li ngay def nii du yoon ah nañu wax ne dëgg rek ba pare mu indi fa ay bandi yu mag jour élection député jour élection mairie man la fa fekk Balla Gaye man la fekk suñu kër danga may déglu ñu nekk si mairie bi man lañ fekk suñu kër ne ma Balla isaan yi koñ moo ngi tàng jër Amadou moo fi dugal ay bandi yaa may déglu Amadou Hott moo dugal ay bandi man leen Amadou Hott lu lay dugal suñu ay bandi te moom moom dafa joxe xaalis bu wax tàll fii kon moom warul sax indi fi ay bandi war na xeex ba jël ba gañ yëmbal waaw euh, Balla ñu ma dellusiwaat encore ci question bi mooy est-ce que yéen def ngeen ay ay jéego pour que jeunesse yëmbal Euh, am ci financement yi nga xam te ni moom la fi euh, structure yi fii Macky Sall def est-ce que a ngi def ay jéego maanaam ngeen am carte dante am ay këyit yu wane ni kii nangam la dëkk lii muy turam lii muy turu ndeyam lii muy turu baayam bu ko defee ngeen génn ci situation jafe-jafe yi nga xam te ni ci ngeen nekk yéen. waaw loolu dëgg la mais booy man mooy ñëw rek Baye Daara moom moom deux ans la libéré parce que Serigne Touba police bu Baara Gaye boobu la dem di déposé quarantaine te DER ñëw na waxul na weng te moom xoolal DER jour boobu ba mu ñëwee di wax Baye Darou dafa waa DER dafa dem rek jour boobu noonu ñetti jours ñu te ko si mu daanu dem koso ñu teg ko deux ans si la ñëwaatee nii te boo naa laa wax booy boobu na ñetti deux ans yoo xam ne dafa tegaloo dafa tegaloo. mais lu mu def. deful dara defuñ dara booy defuñ dara. barki Seexul Xadim booy amul loo xam ni dem nañ ko man damay wax man amul lu may ragal di wax man yàlla yàlla dañoo sàq pour ñuy wax yàlla sàquñu pour ñuy noppi. góor bu noppee rek tàppeen nga ñun si dëkk bi lañ bokk père ñoom dañ nga xam ñu xam ne ñun si dëkk bi lañ bokk man damay wax par amuñu monsieur le maire amuñu njiit man su ma sañoon kenn dong laa neewloo si si monsieur yi muy Barthélémy Dias ndax kooku ñëw man damay dem toog Dakar koñam ay jeunesse waa Wembale waa waa waa Rëbëski da leen di jàppale jeunesse bi ba nekk ñëpp Barthélémy Dias ba mu toogee yàggul ba mu toogee yàggul tam nga dimbali waa koñam. di jàppale li ñam Médina kenn jàmbatul dara seen yëpp a ngi liggéey ma damay toog damay toog foofu nee naa ñun Sénégal mënuñoo am lu baax ndax ñun teranga teranga gu baax wala ñu wax am njiit yi fi nekk ñoo ñuy soxoree. waaw léegi Balla euh, ba tey tontu ma ci sama laaj bi de. est-ce que yow en tant que activiste bu yëmbal. est-ce que xale yi nga xam te ni euh, daanaka kër ga kaso ba kër ga kaso ba est-ce que am ngeen ay matuwaay ak ay taxawaay yoo xam te ni. Euh, yéen a ngi koy def pour que ñu am ngeen am financement gars yi am ngeen confiance finance leen pour ngeen am ay liggéey. non ñun gars yi gars yi ñoo bañ a financé rek. tax ndax suñu suñu grand frère yi nga xamee ne ñoom ñoom la ñuy njëkk a woo bu ñu demee nag ñu ne ñu ay ay bande lañ ndax vidéo bi ñu defoon 2STV nii wax naa léegi nag commissaire bi wala commandant bi nekk police Thierno Ndiaye yaakaar ne man vidéo ma defoon si laa nekkee bande te ñun du ñu ay bande dañoo bëgg liggéey léegi nag comme que loolu ngeen bëgg léegi euh, ban appel ngay lancé ñi nga xam te ni nag ñooy yore kuréel yooyu nga xam ne ñooy fi yore financement yi pour que ñu bañ a déglu kenn mais ñu déglu leen yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci soxla yéen a nekk ci besoin pour que ñu ñëw financé leen. waaw ndax Gana Kebe mii ma la wan léegi léegi ndax moom dafa jóg korog la ñëw biir yëmbal am lu mu doon wax ne dafa bëgg a jàppale waa yëmbal ànd ak suñuy grand frère dina la ko nag gànna su nekkee yow mii bëgg nga ñu jàppale la dañuy jàppale ndax ba nga ñëwee barki démboo Njaay man damaa wax gànna moom xam na li may wax man damaa wax si parole na ko gànna ñun soxlawuñu alalu kenn soxlawuñu xaalisu kenn mais da ngay ñëw yëmbal jàppale jeunesse bi ñu jàppale la moom moo war a def anniversaire cere yi kini bi euh, fee ne Kër Massar waaw buggoon naa wane track bi mais mënu ma ko wane moom moom moom xam nga dafa ñëw ne dañuy jàppale te yàlla tax te moom di ñun gis naa ko damm ñetti damm damm sama biir koñ ñetti damm damm te yaayam moom la yaakaar baayam moom la yaakaar grand frère moo ngi nii nag kenn amul lu mu ko fajee ñetti damm damm te tànk bi yàqu na. ay xale yi nga xam ne ñii gees am nañ ñii am nañ ñii di jàng te seen yi moyen amuñu moyen amuñu jàppale. voilà donc euh, loolu moo nekkoon appel bi nga xam te ni euh, Balla Gaye ñu gën ko min ci Balla Mbaam indi woon na ko tey jii euh, lancé ko autorités yi pour que ñu jàppale xale yi nga xam ne ñoo dëkk yëmbal xale yi loo xam ne bëgg nañu liggéey mais dañoo ñàkk fu ñu wéeru dañoo ñàkk moyen dañoo ñàkk cëslaay dañoo ñàkk ku leen taxawu ba ñu am liggéey génn ci situation bi metti yi nga xam te ni ñi ngi fi parce que li ñu bëgg mooy toog am jom liggéey tekki comme jeunesse yëpp. loolu la ñu bëgg donc euh, maanaam mbiru kaso dañ ko bëgg a tuub sànni fële taxañ sànni sa xaj liggéey jëriñu jëriñ seen waajur wala. mais tamit damay sant ki nga xam ne mooy Siteu ci tëmbër ndax moom dafa def loo xam ne nii kenn defu ko. mooy dafa def loo xam ne nii ay ay ay autorités sax ñoo ngi biir koñam ay autorités sax ñoo ngi biir yëmbal ñoo ngi fépp ñoo ngi jàmm gën ñoo mu ñoom mënuñu def li Siteu def Siteu moo jënd ay machine ay moto di ko jox ay booyam pour ñu si teg tak di si daan doole kooku Siteu moo ko def jàppale jeune si koñam ki gaañu foo euh, kii Fodé mi gaañu mu tabaxal yaayam kër kon Siteu kon kooku deselul dara kon kooku nekkul mbër kon kooku yàlla moo am lu mu ko boole rek mais nekkul mbër moom mu ngi jàppale booy yi di jàppale booy yi nga xam ne ñoo jun affaire banditisme mu leen di jël ji leen jéem a soutenir bañ baax kon kooku noonu amuñu fayam bu ñun bu ñu amee suñu amee ku mel na kooku kon ñun biir yëmbal fi ñu dëkk bu ñu amee ku mel na kooku lu ñuy wax lu ñuy wax dara ndax boo yaa ngi biir yëmbal heure boo yeewoo nga dem Piri Laayab boo yaa ngi Semooru heure boo yeewoo nga dem Katia Baas boo yaa ngi Semooru heure boo nga dem euh, Këli Koro boo yaa ngi Semooru nga dem Sam Sam boo yaa ngi Semooru dem Caaray boo yaa ngi Semooru nga yeewu ñëw Caaray euh, fan la war Semooru mooy la bu mooy boo yaa ngi taxawaalu rek amuñu liggéey amuñu dara bu ñu jàppee yóbbu ñu koso ah léegi nag policiers yi dañuy ñëw taxaw ramasse léegi dañ lay ramasse léegi léegi nga fay 3000 léegi léegi ñu bàyyi la nga ñu ramasse léegi léegi nga fay 3000 léegi léegi ñu bàyyi la léegi nag ñun léegi la ñuy dund wala ñu léegi dañoo bëgg a dund duñu du ñu jaay doole wala dañu duñu nax te ay ay ay patron la ñu nii kenn du si wax.